أقال يا الله صلي بقاء برفيق يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان مهتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنت رئيم راسي أرجو برحمتي ألا أولا ينظر منك يا الله مليك يميني وقل بزول يا مليك بلا إذان بن بيجو دل منك يا الله خدست سري يا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 جماعتي يا الله أنت العزيز العزي أطيب إيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم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 أتيت به لسأت بسكريا يا خضار يا الله خارت لي ربيعة دعي بلا سبب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا فاخ مسألتي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 الفتاء يا الله ألم تلل قيباء تعثت منتميئا أتى الأليم لاسي ألمت يا الله خبرت يا قابل أسواء وانصرفت لخير نبياك الأدار يا الله بزار ساكت الأمال لي بريدا فاذكر مباستتي دارين يا الله بسطت يا باسط الأعمال لي بريضا فاذكر مباستتي دارين يا الله قبلت يا قافل أضاء لي وما لو لخير نهري بقف منك يا الله رضاك يا رافع الدارين مرتبتي بلا انقفال بفضل منك يا الله رضاك يا رافع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 لخوت فلن أزي من منك يا الله الله لاسي لقط مغفرة معك يا برادي تعنك يا الله أنت سكر لاسي كلي لديك ريدا ولي سكر تجمي asa ya allah alali yulafi ahlaytani abadan بخير مكر ودين على التحيا الله أرضى الكبير لاسي بانت كبارته لي خط فال لي خط من ككبي الأجر يا الله أثر كبير الذي بانك بارته لخط من ككبي الأجر يا الله أثر أفيس الذي وجات في أباد إلى سواي الإيداع والضر يا الله أنت المقيت لاسي خلقت لي رقادا بلا إصعاب إلى الجماعة يا الله أنت الأسيب لاسي قد اكتفيت به عن الإدعاء والآثار والكد يا الله أنت الجليل الذي ساخ جلالته إلى سوانا لدار دارين يا الله أنت الكريم الذي قد قدت لي كراما دنيا وأخرى معك تفسيره يا الله أنت رقيب لسي بعد صيانته كلي كليتي أنسي ورلواني يا الله أنت المجيب لسي قادا بخيرا إجابة من قلي لاخترت يا الله وإنك الواسع الباغي ولي أبدا توسئة بالإبق يا الله أنت الأكيم الذي أبلغتني لسوى مزائني وما أو تسوء يا الله أنت الودود الذي خادت موادته ربي سرمدا بريلا والقرب يا الله عسى المجيد لاسي بان مجادته وخدت لي منك مجدا فاخ يا الله وإنك البعيس المقي بلا درار كويتني جملة الأقدار يا الله أنت سيد لاسين هذا سعادته لبترايك من نساك يا الله يا خلاص البيئة قيام جملة ما لم تر لي مطلقا بالفضل يا الله يا قليب أبي قنوا وجملة ما لم ترللي مطلقا بالفضل يا الله أنت الوكيل ناسي قد اكتفيت بي في الدفع والجلبية كالخلق يا الله في الدفع والجلبية سوخ الخيال في الدفع والجلبية سوخ الخيال في الدفع والجلبية سوخ الخيال في الدفع والجلبية سوخ الخيال أنت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الدفع والجلب يا ذا الخلق يا الله أنت القوي الذي خويتني بردا في سر والجني يا ذا الأمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنن ولا توجه بمكروه أحيا الله أنت الولي لاسي لا أبتقي بدلا بي ولي كنت بالتعمين يا الله أنت الأميد لاسي أنت الأميد لاسي وجبت لي نعما بلا قر وقير المكر يا الله أنت الولي لاسي لا أتقي بدلا بي ولي كنت بالتعمين يا الله أنت الأميد لاسي وجعلت لي نعما بلا قرور وخير المكر يا الله يا موسي الخلق والأسياء جملتي تليتني درما أتيت يا الله يا مبدع الخلق يا من لا تواجهني ما لا أحب منادي عنك يا الله يا مبدع الخلق يا من لا تواجهني ما لا أحب ردي عنك يا الله ميد مدى أو للخط لي كرما في كل سهر ويوم فيك يا الله مهيب بخير آيات جدت لي أبدا فلا تسكري بصف الأمر يا الله مميت قد سخت موتي للدع ولا أم مكاري سخت في الدارين يا الله يا عندي وسكري riimaridaya maan minni yaqus doona suxtin minka ya allah ya hamdi wa sukri maridaya maan minni yaqus doona suxtin minka ya allah qalu haqqu taali ma kuntu andubu بخير كسب إلى الجنات يا الله yonent bi sallallahu di màggal gi nga xam ne mi ngi amoon le 6 août 2020 ni ki démb dëppoo nag talaata ni ngi koy defee nag uh, at mu jot uh, nga xamante ne ni uh, ginnaaw buñ amalee màggal gi ba noppi dañu amal ab jataay jataay boo xamante ni dañuy dañ ci woo ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi am ay euh, message yoo xam ne daal ñu ko fi yëkkati mu jëm rek ci euh, ay soññe yoo xam ne day bàyyi ko ci xalif général des Mourides jëm ci taalibe yi waaye délégation officielle yi nga xam ne dañ fi teew te bàyyi ko ci état bu Sénégal ñoom it yëkkati ay kàddu euh, sëriñ bi waxtaan ak ñoom loole nag lañuy amal tey ci beneen format maanaam ci beneen anam ndax gis ngeen jàngoro ji nga xam ne moo am ci réew mi ngir euh, moytu li nga xam ne moo di cérémonie officielle bi nga xam ne la daan teew ci mbooloo day takk lool te jataay bi euh, mënta ñàkk maanaam kàddu yoo xam ne day bàyyeekoo ci sëriñ bi dem ci taalibe yi moom moo tax ñu amelee ko fii ci saal bi nga xam ne moo di saalu sëriñ Moustapha siiru nekk ci euh, kër sëriñ Touba gi ci résidence Khadim Rasoul jàkkaarloog jumaa ji mu nekk jotaay boo xamante ni kilifa yi gis ngeen sama ginnaaw ni nga xam ne noonu lañ tàmbalee teew. ñu respecté li nga xam ne moom moo di euh, masque yi respecté lépp loo xamante nii dafa jëm euh, ci euh, mbooleem li nga xam ne waa Kër Docteur digle nañ ko loolu moom moo tax ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi ñu ngi tàmbalee ñëw état bu Sénégal moo di ki nga xam ne moo di le président Macky Sall yabal na fi délégation boo xamante ni le ministre de l' intérieur Aly mi nga xam ne fan yëpp mi ngi woon ci Touba Mbacké moom moo ko jiitee ànd ceeg yeneen jëwrin ak yeneen i kilifa yoo xam ne incha allah daañu teewee jataay bi nga xam ne moom lañ fas yéene amal fii ci résidence Xaadimu Rasul ci ni nga xam ne noonu lañ ko daan amalee waaye mu wuuteek ni nga xam ne noonu la fas ne amee ni ki ren ji donc mbokk yi ñu fàttali rek ne màggal ren gi muy màggal 2020 bi ñëw na ci situation wala ci contexte boo xamante nii Euh, àddina sépp moytu nañ li nga xam ne moom moo jëm ci rassemblement yi nga xam ne moom moo doon am waaye ki nga xam ne moo di xalifa général des mourides Serigne Mountakha ba siiru li nga xam ne moom moo di bës bii di bésub euh, euh, mën nañ ne bésub jullit yëpp ndax Serigne Touba bi mu koy wootee daf ne képp koo xam ne sama mbégte mooy sa mbégte bés bii fu mu del seetee ci àddina na ma ci santale yàlla li dalee ci ginaar ba ci gileem muy bésub cant bésub bernde bésub jaamu yàlla muy fukki fan ak juróom-ñett ci safar di bés boo xamante nii fu ne la taalibe di bàyyeekoo ci biir réew mi ci bitim réew ngir ñëw teewee ko santale Serigne Touba yàlla suñu borom ndax lim ko ci defal ndax euh, saa su ne ñu koy euh, nettali sëriñ bi xaarul ba am lam bëgg ba yàlla fay ko mu door a sant waaye début épreuve yi maanaam cant gi c'est le début des épreuves maanaam ca natt yi ba muy tàmbali keroog fukki fan ak juróom-ñett ci safar. ci atum 1313 ginnaaw gàddaay dëppoo woon nag 1895 bi muy génn ci fi nga xam ne moom moo di këram gi nekk ci Mbàkke yi dem di liggéeyal ji boroomam yàlla suñu borom boole ko nag noonu jamonoom muy nasaraan si bés boobu nga xam ne moom la génne moom la ñuy célébrer eh, ci li nga xam ne moom moo di màggal gi. donc bés boobu nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi dañ ciy def luñ mën di ci def luñ mënul. di ci def lépp loo xamante ni moom moo jëm ci seen liggéey mu mel ni euh, Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir mooy dugg si euh, nii ci euh, salle bi ànd ak yeneen i kilifa yoo xamante ni ñu ngi ñu ngi bàyyi xel rek li nga xam ne moom moo di liggéey bi kon Serigne Mountakha Mbacke Bassirou moom mooy dugg si noonu ci fi nga xam ne moom moo di ci salle bi ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ak kilifa yi ànd ak moom muy Serigne Mountakha Mbacke Bassirou. Euh, mu ngi noonu dugg nañ ci salle bi euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi ànd ak moom ànd ak Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr xam naa rek ci neskis incha allah daañu tàmbali li nga xam ne moom moo jëm ci euh, waxtaan wi nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo ndax sëriñ bi teew na muy Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bassirou xalif général des mourides di ko ñaanalaat mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne am na ko mu jëm ci màggal gi ci taxawaay bi nga xamante ni. am na ko mu jëmee ci mbas mi ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne am na ko mu jëmee ci mbooleem loo xam ne dafa jëm ci réew mi nga xam ne moom moo di Sénégal donc euh, mu nekk euh, jotaay boo xamante ni moom lañ fas yéene ànd ak yenn ci euh, retransmettre ko en direct fépp fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ci bitim réew ngeen mën koy dund en temps réel ci kàddu yi nga xam ne dana fi bàyyeekoo ci sang bu tedd bi di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou jaare ko ci ki nga xam ne moo yor kàddoom di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir kon mbokk yi mel ni jotaay bi léegi mu tàmbali dañ leen bàyyi rek ngeen dund li nga xam ne moom moo di jotaay bi nii fii ci résidence Khadim rasul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 julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa salam ñi ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñi ngi teewlu jataay bu tedd bii di ci jiital a cheikh muhammadul muntaqa di ñaan sunu boroom mu dolli koo sàmm yàlla na ko yàlla dolli sàmm yàlla na ko dolli ak wér yàlla na ko may fan wu gudd ba lépp lu mu sumb yàlla na sotti te nu ànd ko ak moom di nuyu itam gan ñu tedd ñi nga xam ne ñoom la feggool te xam naa ne Cheikh Mouhamadul Bachir bu jëlee kàddu dana ci yaatal bis bi nag bi mu dëgmalee sëriñ bi dafa def na mu daan def yëkkati kàddoom woote ko bi moo ko wootee nit ñépp seen xel dafa dal nit ñëpp seen xol dafa sedd nit ñëpp seen yaakaar dafa dolliku ba mu ko wootee ba noppi Cheikh Mouhamadul Bachir sof ca kàddu wax ni sëriñ bi santaane ñi wuy ni sëriñ bi bëggee ñu wuy noona ñi fi nekkit ni sëriñ bi bëggee ñu nekke noona ba màggal gi jàll ci jàmm màggal gi bi mu jàllee ñëpp am nañu yaqiin ci ne dana fóot réew mi ba mu set dana ko fóot ba mu set ci lépp luy safaan te póot moomu yàlla na law ba tasaaroo ci àdduna sëriñ ba Bachiru nee na sëriñ bi nee na mi ngi bàyyi xel waa Sénégal yi nga xam ne dañoo nekk bitim réew li ëpp ci ñoom ren mënuñoo dikk ndax gàllankoori jamono waaye sëriñ bi mi ngi leen di bàyyi xel mi ngi leen di ñaanal mi ngi leen di fàttaliku mi mi ngi ñaan sunu boroom mu fóot ko ci réew mi fóot ko bitim réew ba ngeen delluwaat ca seen sago bay ñëw ak a dellu ci barkeb bi sëriñ bi wootee nag bokkam yi nga xam ne ñoo bokk ak moom diine ji ak réew mi def nañu la daan def waa kër Cheikh Cheikh El Hadj suñu maam Serigne Babacar Sy Mansour yabal na mbooloo Sidi Ahmed Sy Al Amin moo leen jiite waa Medina Baye ñas ca Kaolack Cheikh Mouhamadul Mahi may kilifa ga yabal na Sidi Arabi Niass mu ànd ak mbooloo teew ci bis bi waa Njaasaan cheikh Bekkaay al Bekkaay ma nga xam ne mooy kilifa ga yabal na mbooloo moo xam ne cheikh bu Xalifa Kunta moo ko jiite Laayeen alxaaji Abdoulaye Thiaw Laay may xalifa ba yabal na Sina Isa Laay mu ànd ak mbooloo teew ci bis bi Ndeer sëriñ Ahmadou Kunta teewal na fi kilifa ga ak njaboot ga waa kër Cheikh Omar Foutiyu ya féete Njaambur Ceerno Seydou Nour Taal teewal na leen fi waa pir Cheikh Mouhamadul Mansour Cissé ak sëriñ Maodo Cissé teew nañu fi waa al mustarshidun wal mustarshidaat Cheikh Moustapha yabal na alxaaji Malick Mbay mu teew na mu daan teewe ci bis bi Morolan sëriñ ba yabal na sëriñ baaba Cerno Combaan mu teewal fi njaboot ka ndànk kunta ñoom itam sëriñ ba yabal na sëriñ Aliou Muxtaar kunta mu teew fi teewal fa njaboot ka rabita sénégalia lil muy ñi nga xam ne ñooy waxtaan ci diine di ba ci jumaa yi te imaam ahmad daam njaay jiite ko teew na fi ànd ak mbooloo njabootuk suñu maam ahmadu baru njegéen ca cees sëriñ ba yabal na sëriñ daam njegéen mu ànd ak mbooloo waa Guet Ardo sëriñ ba yabal na cheikh ajjuma xadraame ba mu teew ànd ak mbooloo waa taslima sëriñ ba yabal na sëriñ Aboubacar Jaabi mu teew ànd ak mbooloo waa kër suñu maam Ahmad Quraysh ca Ndar seen kilifa yabal na Chérif Konaare Jaañ Quraysh mu teew ànd ak mbooloo waa Bamba Moodi te ku ne xam na seen diggante ak Touba sëriñ ba yabal na sëriñ Mouhamad Sall mu teew ànd ak mbooloo waa Guyet Chérif seen kilifa yabal na sëriñ Moustapha Haydara mu teew fi ànd ak mbooloo jaamal seen xalifa ba yabal na alxaaji osmaan Cissé mu ànd ak mbooloo pete kilifa ga yabal na alxaaji sëriñ Jibi Ndiaye mu ànd ak mbooloo waa kër na Ibnu Abbas Sall sëñ Mansour may kilifa ga yabal na sëriñ Abdoulahi sàll mu teew ànd ak mbooloo waa kër sëriñ As Tànjang ca Njaareem yabal na yabal nañu sëriñ Mbàkke Tànjang mu teewal leen fi ànd ak mbooloo waa hayatul amal alxayriya muy mbooloo mi lëkkaloo di def lu baax yabal nañ ko ñu wax Serigne Moustapha Booy Serigne Moustapha Puy mu ànd ak mbooloo mbootaayu doomi soxna yi Serigne Habibu Saaxo def na na mu na mu daan def teew na ànd ak mbooloo waa xisbullah yabal nañu ko ñu wax sëriñ Màggat Kan waa kër suñu maam almaami Maba Jaxu Ba ca Ñooro seen kilifa yabal na sëriñ Abdul Ba mu ànd ak mbooloo Fulaadu kabindu sëriñ ba yabal na sëriñ euh, mu ànd ak mbooloo ruumde euh, seen kilifa yabal na Ceernu Ousmane Iyaan mu teew ànd ak mbooloo Ngumba Ngewul sëriñ ba yabal na Chérif Chassad bu Jóob mu ànd ak mbooloo Nguraan seen kilifa yabal na Cheikh Makhtar sekk mu teew ànd ak mbooloo waa AIS yabal nañu Serigne Babacar Cissé mu ànd ak mbooloo mbootaayu imaam yi nekk Pikine yabal nañu Serigne daam Ndiaye mu ànd ak mbooloo waa Kër Soose Alxaaji Omar Niass ak njaboot ga yabal nañu Alxaaji Mouhamadou saaxu mu ànd ak mbooloo waa kër suñu maam Makhtar Kala Daraame yab Serigne ba yabal na sëriñ Aliou Daraame mu ànd ak mbooloo. waa kër sëriñ Mouhamad Nabi Guèye ca Wakaam seen kilifa yabal na alxaaji Mouhamadou Camara mu ànd ak mbooloo mbootaayu imaam yi ak olamaa yi yabal nañu sëriñ Cheikh Thioub mu ànd ak mbooloo waa kër suñu maam alxaaji tiijaan Niang ca Saint-Louis nañu sëriñ Ibrahima Niang mu ànd ak mbooloo njabootu Jimbira yabal nañu Cheikh Talibou ya mu ànd ak mbooloo waa kër tafsir moor njuur kilifa ga yabal na sëriñ Mouhamadou sekk mu ànd ak mbooloo waa aljamaa al ahmadiya yabal nañu sëriñ Aliou Diop mu ànd ak mbooloo grand sëriñ de Dakar euh, teew na muy Pape Ibrahima Diagne ànd ak mbooloo waa ba itam euh, xalifa bu yabal na Cheikh xalifa xalifa Seck sëñ xalifa Seck mu teew ànd ak mbooloo waa Daaru Salaam Ndaw Euh, kër suñ maam alxaaji omar ndaw seen kilifa yabal na sëriñ mouhamad saadiq ndaw mu ànd ak mbooloo diigaan te ku ne xam na diigaan moom mook tuubaa du ñu ñaar xalifa bi yabal na cheikh ibrahima saw mu teew ànd ak mbooloo waa kër alxaaji ahmad dem ci sookoon seen kilifa yabal na alxaaji abdoulahi dem mu ànd ak mbooloo waa kër alxaaji bamba surang ca ndar am na ku loon fi teewal muy sëriñ pap surang institut xaali Amar Fall yabal nañu ku ñuy wax malik Malick mu ànd ak mbooloo njabootuk alxaaji Cernu Kàññi ca njaarim yabal nañu alxaaji Seck Kàññi mu ànd ak mbooloo waa kokki daara ji yabal nañu sëriñ Ahmadou Muxtaar Lo mu ànd ak mbooloo waa Makka Kulibantan yebal nañu sëriñ mu Mouhamadou Khalifa Diaba mu ànd ak mbooloo njabootuk uh, sëriñ Mouhamadou sëriñ Mouhamadou Tayiruka yabal nañu sëriñ Muaas Ka mu ànd ak mbooloo waa kër Cheikh Omar Darame yabal nañu sëriñ Omar Darame mu ànd ak mbooloo njabootu maam alxaaji Rawxaan Ngom ca Paal yabal nañu alxaaji Ibrahima Ngom mu ànd ak mbooloo wuruma di itam yabal nañu Ceerno euh, Alfahim euh, Ba mu ànd mbooloo waa ahlullaahi ca ndànd yabal nañu sëriñ Moustapha Darame mu ànd ak mbooloo waa Koyli Alpha te ñuy soppe sëriñ Bachiru mi teew nañu yabal nañu Serigne Moustapha Ba mu ànd ak mbooloo am na mbooloo mu bàyyi ko bi ci njiitul sëriñ Serigne Mouhamadou Lamine daa daairatul ansaar muy tubaab yi nga xam ne itali la ñu dëkk waaye dañoo tuub nekk taalibe sëriñ Touba ñoom itam teew nañu ànd ak mbooloo bu ñoo ñu jàllee nag président bu Mauritanie muy euh, Mouhamad Wulu Cheikh Al Ghazwani dafa yabal mbooloo teraanga yu bari la ca boole wax ne korona dafa xamul diggante gànnaar ak Serigne Touba moo tax mu fi jéem a dox waaye bu xamoon diggante Serigne Touba ak gànnaar du fa jéem a dox yebal na mbooloo moo xam ne Sayid Muhammad Xattaari alqaim bil amal fi safaara moo ko jiite ànd ak Sayid Muhammad Aminu ànd ak tam Sayid Fuknaas mu nekk ca protocole ba ca présidence kon teew nañu ànd ak mbooloo ak teraanga yu baree baree bari këri diine yi nag Mauritanie ak Zawiyatul Xasaniyin teew nañu Sayid Al Xasan wuldu Cheikh ak Cheikh Hamid wul Ishaq ñoo leen teewal Zawiyat Tikmatin nga xam ne waa kër sëriñ Touba lañu di ay ashraaf nga xam ne seen kilifa bu yàggul rek la génn àdduna sëriñ bi yabal fa ay ndaw jaale leen massawu leen bokk ko ak ñoom docteur Ahmad Bamba Fall mi nga xam ne muy xalifa ba teew na ànd ak mbooloo mu takkoo takkoo takku zawet Mouhamad Wuld Ajfar Laamar al Yaqubi teew nañu fi ànd ak mbooloo zawet Bani Daymaan ñëw nañu zawet Ilhaajiyin ñëw nañu zawet Cheikh Ahmad Wuld Cheikh Ishaq ñëw nañu zaawiyat al alawiyin ñëw nañu zaawiyat ashaqrawiyin ñëw nañu sayid ibrahim fall nga xam ne mooy jiite euh, bac ba nekk rooso ñëw na fi ànd ak mbooloo mu takku zaawiyat cheikh ahmad wula ahmad misk ñëw nañu zaawiyat ahl salaahi ñëw nañu chérif hamadi teew na ànd ak mbooloo sayid muhammad wul fatan ñëw na ànd ak mbooloo sayid maxtaar ba ñëw na ànd ak mbooloo zaawet Cheikh Ahmad euh, Bamba muy waa kër Serigne Touba ya nekk ca capital ba Nouakchott ñëw nañ ànd ak mbooloo mu takkoo takkoo takku zaawet Cheikh al Mousta'in al Koumlayli teew nañu ànd ak mbooloo mu takkoo takku zaawet Tungeen ashurafa di ay shérif teew nañu zaawet Tijaaniya al Ibrahimiya ca Mu'tu Malaana teew nañu ànd ak mbooloo. Cheikh Mouhamad ibnu Cheikh Mouhamad Vaal teew na ànd ak mbooloo Cheikh Mouhamad Yaslim Alhambali teew na ànd ak mbooloo Zawir Cheikh Ahmad ibn Hassan teew na ànd ak mbooloo Cheikh Mouhamad Vaal ibn Sidiya teew na ànd ak mbooloo Sir Al Hassan ibn Yaslim teew na ànd ak mbooloo Zawir Ahl Garak Ahl Garak Ashurafa teew nañ ànd ak mbooloo usratu Cheikh njabootu Cheikh Abdul Wadud ñoom dañuy taalibe Serigne Touba te am baat ca gànnaar am fa doole am fa mbool am fa mbooloo ñu dëkk ren dikk boo xam ne nag dafa gëj a am ndax Cheikh mu Moutaka dafa liggéey lu rëy ci diggante kër googee ak Touba tax na seen xol sedd ba ñu dikk dikkin woo xam ne gëj nañ koo dikk kon ñu ngi leen di dalal di leen masawu seeni coono kon lii daal mooy li ñi nga xam ne mënees na leen a tudd waaye mëneesitu sax tudd ñëpp xanaa rekk di massawu ñi nga xam ne dañ doon ñëw te suñu boroom moom leen ci accident yi sëriñ bi mi ngi leen di fàttaliku di leen ñaanal yàlla nañu daje ak sëriñ Touba yàlla na leen yàlla yërëm kon damay jox kàddu gi waa mbokki jullit ya nekk be ñoom itam teew nañu ànd ak mbooloo kon euh, damay jox kàddu gi jëwriñ ji nga xam ne moo yore mbir biir réew mi teewal fi njiitu réew mi mu jottali kàddu yi nga xam ne moom lañu ko yónni bismillah auzu billahi min bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa sëriñ bi maa ngi ànd ak uh, gouverneur région bu Diourbel gouverneur gi mbay préfet département de Mbacké Matar Diop ak sous-préfet bu Ndaam Babacar Ibra Mar délégation bi président daan yónnee daawut mel nii waaye fii jamono bi toll moo ko waral kon ci turu président de la république maa ngi lay nuyu sëriñ Muntaxa Mbàkke suñu sëriñ xalif général kullu murit di la ñaanal nga yàgg fi lool te wér di nuyu mbooleem njabootu cheikhul xadim gi ak yow ci liggéey bi di nuyu mboolem njabootu cheikhu cheikhul xaddim yi di leen ziyaar ñoom ñépp di nuyu mboolem kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo bokk réew mi te di rafetlu seen taxawaay sëriñ bi dañuy tàmbali di la ziyaar mbokki taalibe yi yi doon namm màggal si te yàlla def lu gën ci ñoom te digal ñun ñi fi des te war a ñibbi ñu def ndànk ci yoon wi bu ñuy dem sëriñ bi sa taxawaay ñépp a ko rafetlu ci réew mi rawatina jàppale gi nga ñu jàppale bi mbas mi wàllisi ci ndoorteelu at mi mbas mi wër na àdduna bàyyiwul benn réew bàyyiwul benn xeet bàyyiwul benn nit ak nu dara jam toll keroog ba mbir mi ñëwee ba fi mu toll bépp dogal bu ñu jël diisoo nañu ci ak kilifa yi rawatina ak yow mii nga doon diisoo ak njiitu réew mi saa su walla nga doon jokkoo ak man mii fu ñu ci toll sëriñ bi yow yaa njëkk yëkkati ñaari téeméeri million jàppale ko ci mbas mi joxe ndigal ñuy toppatoo ci ay xéewal nit ñi nekkoon ci bërëb yi ñu leen beroon fii ci tuuba jàppale waa kër docteur boole ko ak ay digle nga walbatiku ci njàngale bi ngay jàngale ngay takk mask wone ko digle ko ñoo ngi sàkku nga dolli ñu ay ñaan ci mbas mi nekk fépp ci àdduna yàlla jëlee ko fii ci réew mi ak yeneen réew yi ndax li nga ñu ñaanaloon daaw ci màggal gi lépp gis nañu ko ayu bés yii li mu ñu ñu bees ñi feebar bi dal wàññeeku na bu baax ñi ci wér yokk na bu baax te limu ñu nekk ci sowetaas wàññeeku na it bu baax ci réew mi sëñ bi tey bu Sénégal damoo résultat yi mu am ci mbas mi ci kanamu réewu àdduna yu bari sa loxo ak say ñaan mi ngi ci bu baax a baax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo wax ne adduwaahu yardu lil bil balaahi ñaan day dàq balaa sa maam cheikhul xadim wax ci matlabul shifaa yi yàlla moo digle ñu ñaan ngir ñaan yooyu dàqal leen balaa ba mu sori leen ndax feebaru mbas yàgg naa am ci àdduna amoon na fi ci jamono Omar ibn Xattaab faat lu bari ci nit amoon na at bi sëriñ bi demee ci tukkeem ba jamono jooja juróom ñett nit te njabootug ak ca taalibe yi faatu nañ ca sëriñ Moussa Ka woyoon ko ci lu mat juróom ñett nelaw ca mbas ma balaa ba tar na mooma at mbasam ma loola moo taxoon boroom daaru moxti maam Cerno Ibrahim daldi garanti ak ruwam ak bu waajuram bu jigéen ak ñaari doomam ne sunu boroom boo naree jël njabootuk cheikhul xaddim baal leen ñu demal leen te ñoom ñu dund dogom nga tax yàlla delloo ko ruuya ba noppi mbas mi jeex 1919 bi fi mbas mi fekkee sëriñ bu mag bi bi ñuy jottalee sëriñ bi santaane yi kër docteur santaane sëriñ bi dafa joxe ndigal taalibe yi bokk ci ñu doon defar lasare bi mu fi ñëwee tamit ci daaru muxti maam Cerno Ibrahim dafa nangu woon génn dëkk ba ab diir ñu lakk ko ba muy génn ay téere yi sëriñ bi la ànd ak ak ndongo yi kenn ku nekk la nga yoroon képp nga sol ca lañu sanc ci ngóor sëriñ bi sa doxalin bi nga am moom la sa maam yu baax yooyu amoon ca seeni jamono ñuy ñaan muy ay ñaan ak li kër docteur yi digle ñu topp ko kon nag sëriñ bi yow yaa fi sëriñ Touba ñaanal mbas mi jeex te am nañ ci yaakaar ndax dëkk bii ñu nekk fii la cheikhul xadim bindee matlabul fawzeyni ca la waxee ne sunu boroom na nga def muy dëkk buy indi aw yiw di dàq ay lor wa maskanan li jalbi kulli xayri wa maskanan li dàq fi kulli bayri ak yeneen yu bari yoo xam ne sëriñ bi bind na leen ci ay xeetu ñaan ñaareel bi ñoo ngi ci màggalu Tuuba bésub sant yàlla la te koo gis muy sant weesu na ak muñ li ñu doon muñ ci balaa bi na ko ñaani màggal gi dàqal na ko mu jeex sëriñ bi président Macky Sall bi mu fi ñëwee fan yi ñu génn wax na la ne jox na ndigal ay jëwriñam pour ñu gën a farlu ci liggéey bi dëkk bi laaj rawatina li jëm ci wàllu ndox li jëm ci wàllu assainissement li jëm ci wàllu tali ak wàllu courant ngir gàttandu jafe-jafe yi ñu amoon daaw président joxe woon ndigal ñu def programme d'urgence gas fi ñetti forage yu mag pour yóbbu ndox mi euh, ci wulim bu xaw a ëpp li nga xam ne lii amoon na fi daaw téeméer bu nekk ñu yokk ci fukk ak ñaar genn wàll ci programme boobu mu waxoon ni nañ ci tabax ñaari château d'eau yu 500 mètres cubes yee salaat château d'eau bi nga xam ne bii moo nekk ndaamaatu bu junniy mètres cubes ci wàllu tuyau ñu tëral fi lu mat juróom fukki kilomètres ak juróom programme d'urgence boobu mi ngi jar ñaari milliards ak jenn wàll programme boobu ak ak ni bi màggal gi di agsi àgg na bi màggal gi di agsi waaye ay gàllankoor ci réseau bi bi màggal gi desee ñaari fan moo tax am ci ay quartier yu am quelque jafe-jafe ci ndox ñu doon leen wàllu ci wàllu camion sëriñ bi gannaaw programme d'urgence boobu ni ñu ko waxee woon daaw tànn nañu bureau d'étude bi war a jàngat problème mu ndox yi am fii ci Touba ba seen liggéey wan nan la ko la ca des mooy ñu xayma ko dellusiwaat ci yow waxtaante yow laata ñu koy tàmbali yeneen liggéey yi ci dëkk bi mu jëm ci wàllu tali ak wàllu courant ñi ngi ci muy topp également yaatuwaayu dëkk bi ci wàllu wér yaram président bi mu fi ñëwee wax na la liggéeyu hôpital bu bees bi nga xam ne bii ñi ngi ci ak bi fi nekkoon hôpital bu bees bi ñu fas nañ yéene bu neexee yàlla ubbi ko déwén sëriñ bi bi fi président dikkee ci waajtaayu màggal gi nga diis ko sa bëgg-bëgg jëm ci këyitu suuf yooyu nekk ci njaareem kër gu mag ak fii ci Mbakke def na ci yitte ak pas-pas ba jébbal la ñaata ñaari titre foncier ji jumaay ji nekk kër gu mag ak ci ci Mbakke xewar benn bu ci nekk nekk ñeenti hectare daanaka mu am ci mbégte lool liggéeyal ci sëriñ Touba sëriñ bi néga ni daaw ñi ngi doon tiit ci li ñu màggal gi nar a fekk ci biir nawet bi ren nawet bi ñëw na indi na fi ndox mu fi gëj a am wàcce na fépp ci Sénégal yàqu-yàqu yu bari am na ci dëkkuwaay yi waaye ci dëkki àll yi yàlla def na bu neexee yàlla ren dinañ am nawet boo xam ne bii ci wàllu meññeef gëj nañ ko am ci senegal ci wàllu wu ne nga ñaanal ñu loolu di euh, loolu nawet bi indi fi ñu muurloo ko sëriñ bi ñëw ngi tëj suñu kàddu di la tàllalaat suñu loxo nga ñaanal président Macky Sall yàlla jàppale ko ba yéene ji mu yéene ci réew mi mu matal ko ñaanal réew mi yàlla dolli fee sotti jàmm ak xéewal asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu jërëjëf sëñ monsieur Ali Nguy Ndiaye kàddu yi rafet na te ànd na ak yar ak teggin wax nga dëgg mbas mi bi mu wàccee sëriñ bi dafa wax ne julli mooy jiitu ci jaamu yàlla yi te jaamu yàlla moo nu indi ci kaw suuf kon dey su ko woyofal dey su ko cof kon nañ ko ko fonk nañ ko gën a fonk waaye médecin yi itam li ñu santaane nañu sàmmoonte ak moom bañ a bayliku ndax soo ko soo baylikoo da nga xaru kon lanu doxe ñaari tànk kon loolu mooy doxinu sëriñ bi wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita bu loolu wéyee nag ñi nga xam ne teew nañ ci màggal gi mooy mbooleem parti politique yi nekk Sénégal mboolem ko yore parti di politique ci Sénégal teew nga ci bis bi ngir wan sëriñ bi ne ko maag yow ñoo bokk bis bi kon ñoom itam ñoom ñépp sëriñ bi mi ngi leen sant mi ngi leen di gërëm ak mbooleem koo xam ne yaa ngi yëngatu ci luy suqali Sénégal ak wet goo mën a yëngu yëngatoo waaye la ñor mooy lu suqali Sénégal ak lu yëkkati Sénégal ñoom itam teew nañu fi bokk ak sëriñ bi bis bi kon mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal kon damay jox kàddu gi a Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy jàt mooy jottali kàddu sëriñ bi kon ñu teewloo ko bismillahi arrahmani irrahim wa huwa alqaa'ilu fi muhkami tanzilihi la in shakartum la azidannakum wala in kafartum wa inna azaabi la shadid wasalaatu wasalaamu ala man bu'itha mualliman sayidina muhammadin safwati bani adnaan wa ala alihi wa sahbihi ahli lihsaan wa radiyallahu an baqiyati salaf wa qudwati lxalaf faxri diini walwatan mawlaana al abdi al xadim ahmad bni muhammad bni habibillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ci ndigalul sëriñ bi cheikh muhammadul muntaxa mi nga xam ne moo fi sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf ñi ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mu àggale mboolem naa lii mu am ci lislaam gépp ak mboolem naa lim am ci liggéey Serigne Touba suñu borom may ko kàttan ak ba lépp mu ko ni mu ko bëggee kon ci ndigalam ak kàddoom lañu yëkkate kàddu yi ñuy bëgg a wax kon sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mboolem bokk jullit yépp di nuyu bokk taalib yi yépp di nuyu bokki réew mépp ci bis bu tedd bii nga xam ne bisub Serigne Touba la mu woote woon ko nee na ko ci ñëpp sant yàlla. sëriñ bi nag nee na wuy si ngeen ko wuy si ko gën a rafet kon nag mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax nee na cant ji nag dana ci ñëw ci fi mu koy tàmbalee waaye li jëkk rek mooy ñu xam ne bisu bi bisu sant yàlla la ndax sëriñ Tuubaa dafa jugoon liggéey li boromam liggéey li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba suum borom faye ko ci li mu ko ci faye kon nag bis bi mu agsee sëriñ bi waxoon ne na ko ci ñëpp sant la yàlla mu woote ko nag bokk jullit yépp maase ci wuy ko kon nag cant gi mu ngi koy tàmbalee ci ñu bokkal lislaam yépp mboolem këri lislaam di këri diine yi ak mboolem aljamiyaatul islaamiyya yépp sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci ni ngeen ànd moom bis bii ci ne mu gën a rafete ndax xam na ne waxtu wi xat na amoon ngeen gànt yéen ñëpp waaye rek wan ko ne ko lépp lu loo nekk rek ànd nañ ci ak yow ñaana lool nag réy na ci moom lool mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gën a feddali al uxuwatul islaamiyya gi nga xam ne moo dox seen digg ak moom di ñaan yàlla suñu boroom sàmmal leen ko ba li fay seen kilifa yu baaxee bàyyi woon ci ak bokk ak rafetal lépp ñu sàmm ko ba faw nee na Serigne Serigne Touba nag mas wax ne yaar rek a fi nekk. inna ak innama na nee na innamal mu'minuuna ixwatun mu ne ak tey la inna sheytaana lakum aduwwun mu ne ak nax la mu ne tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun nag ndax gi ci inna sheytaana lakum aduwwun mënu ko yàq nee na loola nag moo tax mu xam ne seen digg ak moom ba faw rek day gën a baax di gën a rafet kon nag muy ñaan suñu borom sàmmal ñu ko ba la nga xam ne moo doxoon seen diggante di gën a tax di gën a baax ba faw nee na kon nag mi ngi fas yéene lépp loo xam daana ko def ci seen diggante ci jokk ak bokk ak rafetal mu gën koo jëme kanam ba fawu lépp loo xam ne nekk ngeen ci itam mu ànd ko yéen ginnaaw bu loolu jàlle itam sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di yóbbantam nuyoo nag ki nga xam ne moo fi teewal ki jiite réew mi di ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak mboolem délégation bi mu àndal ndax xam ngeen ne fii waxtu wi toll moo tax ñu gàttale ko noonu waaye nag kon ali sëriñ bi nee na mi ngi lay yóbbante ak nuyu ak cant ak ngërëm jëme ko ci président de la république Macky Sall cant gi nag sëriñ bi waxoon na ko ci làmmiñam ñëpp dégg ngir wax ne yàlla suñu borom moo ko boole moom jamono wëlbatiku itam mu amoon ci moom yaakaar ba mu fi toogee di nekk jataayu sëriñ Tuubaa yaakaar ji gën a dolli ko nee yaakaar joojooy nag bu soyoon mu ànd ci ak moom bu faw kon nag nee na mi ngi koy sant di ko gërëm. li jiitu cant gi nag mooy li mu waxoon ñëpp dégg ko bi mu wootee màggal gi nee na jàppale na ko ci li mu mënta ñàkk mooy diineem mooy taxawaayam bii mu taxaw ndax nee na moom kat dëgmal na boromam dëgmal Serigne Touba amul jëndi itteem lu may liggéey Serigne Touba ndax nee na aajoom fajoon ndax dafa ba mu jugee rek la dëgg dëgmal boromam jàng àdduna ba xam ko sànni ko ngir xam ne li am njëriñ tey ëllëg mu ngi ci loxo Serigne Touba. nee na loolu nag yàlla defal na ko ci tawféex ba aajoom faju na bu yàgg ndax nee li ma mëntoon a ñàkk mooy sëriñ bi te yàlla gindi na ko ci moom kon nag bu ngeen déggee mu di ko sant gërëm mooy dafa amu dul taalibe sëriñ Tuubaa yi amu dul njabootu sëriñ Tuubaa bi te gis na ne waxtu ne mu ngi ko ci jàppale du ko ci taxawu ci lépp loo xam ne bëgg-bëgg njaboot gi la ak bëgg-bëgg taalibe yi ak bëgg-bëgg dëkk bii nga xam ne mooy dëkku sëriñ Tuubaa te sëriñ Tuubaa mu gën a gënaloon ko lépp kon nag nee mu ngi koy sant di ko gërëm bu baax di ko ñaaral ni mu ko ko waxee barki démb rek ci bi nga xamee ne yónni na fi ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo nga ànd ak moom ak ministre Dame Diop ngeen indil ko ñaari titre foncier yi nga xam ne nee na lu rëy la ci moom ndax nee na defalu ko ko njabootu Serigne Touba gi la ko defal ba ci jiitu mooy albuqaatu mubaaraka di jumaa njaareem ji nga xam ne Serigne Touba moo joxe woon ndigal ci nekkam. joxoon ko ndigal taalibe yi Cheikh Issa Dieng nekkoon jëwriñ ja ñu tabax ko ci kanamam mu nekk loo xam ne taarix bu rëy la Serigne Touba jëndoon pàkk ba ci alalam ci xaalisu ngordu bu yàlla defee mu dem ba nekk fi Serigne ak li fi jaar lépp ñu defee ko titre foncier ci kanamam loolu nee na ak cant gu rëy la ci moom. bu ñaareel ba itam mooy ne ne nga xam ne moo doon barab boo ñu daa fooy ca Mbàkke yàlla def mu jàkkaarloog. ay barabi nit yàlla ku mel ne borom saam ak sëriñ bu sobe ak yeneen njabootu sëriñ Tuubaa sëriñ bi ñëwoon fa daaw yàlla def ba lépp mujj ci ay loxoom mu def ko ci tuuru sëriñ Tuubaa loola itam ma defaata ko titre foncier mu ci yéene juréy ngir wax ne sooral yam ba mu fa def ilaa kalimatillahi la ci jublu muy junj bu rëy rëy nee na loolu itam yàlla def ni mu ko jàppalewaat ba mu sotti ci loxoom nee na mi ngi ko ci sant di ko gërëm kon nag nee na da koy bàyyi ak Serigne Touba mi nga xam ne lépp lu mu koy jëfee rek moo moo tax te Serigne Touba lépp lu ko waay jëfee rek am na ak pay kon mu ngi koy sant di di ko gërëm di la gërëm yooyu itam ci sa taxawaay ndax sa digg ak moom ñëpp xam nañ ko. ginnaaw bu loolu jàllee it mi ngi gërëm nag mboolem ñi nga xam ne mooy ambassadeurs yi nga xam ne. xam ngeen ne ngànt tax ñu bindoon leen leetar ngir xam fi waxtu toll ñu jéggal leen waaye sëriñ bi ne ñëw ñëpp ku ci ne ñi yónnee nañ ay kenn ku ci ne ànd ak moom ci bis bi nga xam ne xam nañ ne amul lu moom ngir ànd ak ci bis bi nañ ko daa defee waaye ñu jéggaloon leen ngir waxtu bi kon ñee mi ngi leen di sant leen gërëm di gërëm itam mboolem formation politique yi nga xam ne kenn ku ci ne ka jiite ñëw na fi siyaare sëriñ ànd moom bis bi kon sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwut kenn nag mi ngi gërëm nag ñi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Touba loolu Serigne bi soññaa na ma léegi ne ñoom ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy tuddi tudd Serigne bi Serigne bi nee na seenu cant amu ko ndax nee na naka jekkit amoon na xel mu dal ci yéen am ci yéen yaakaar ju rëy waaye nag ni ngeen ànd moom kawe na njortam kon nag nee na xam ne lépp lu ngeen di def ci jëmoom Serigne Touba rek tax kon mi ngi lay bàyyi Serigne Touba yàlla na leen fayal boppam. noonu moo ko defee ci ñoom rek mi ngi koy defe ci mboolem ñi bokk yépp bayiwul kenn bu tuddee njabootu Serigne Touba gi ñëpp tàbbi nañ ci biir mboolem ñi nga xam ne itam seen maam ya Serigne Touba moo leen defaroon te ñoo ñëpp itam ñu ànd ak moom àndeen wa gën a rafet Serigne bi nee na mi ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaaral kenn ku ci ne pëstéef ba nga ànd ak moom te doon ci samam ja yàlla na la ca yàlla dëgëral dëgëral la taxawaay te yéegal la ci. wallazina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim zurriyatihim mboolem taalibe sëriñ Tuubaa yépp itam nag sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm ndax ñoom de dañoo wuyu wuyu bu rafet danaa ci dellu si sax mi ngi gërëm itam mboolem ñi nga xam ne ñooy média bi nga xam ne ndaje yi fi xew yépp ñoo ko doon jàllale ndax kon ne xam na fi waxtu toll ñoom itam ñi yoroon liggéey bi wax na ne liggéey nañ ci liggéey bu rafet. mu dellusiwaat nag ci ak cantam ci diggam ak taalibe yi ndax loolu da ko ñor lool ndax dafa woote woon waxoon kàddu yam wax waaye taalibe yi wuy si ko wuy woo xam ne itam kawe na njortam kon nag nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ne leen Sëriñ Tuubaa de dafa waxoon ci njaareem na woote wooteloo nañ ma woote naa ñii wuy si wàcc nañ maa ci des ñi wuy suur wàcce naa ñoo ci des nee yéen nag na ngeen xam ne kon wàcc ngeen ndax woote na te wuy si ngeen ko nee na li ko ci gën a yéem nag dikkeen wi ngeen dikkiran ndax ko ne xam na ne waxtu wi xatoon na lool waaye nag alquran dafa am lu lu mu waxoon dafa waxoon ne ishtara min al muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum al janna nee na yéen nag joxe ngeen seen alal joxe ngeen seen jëmm li tax ngeen joxe seen alal mooy jamono ji xat na lool waaye Serigne tubaa yëgut jamono ju xat wali si yi day dayqu zaman Serigne Abdoul Ahad mbaake waxoon na ne mbay mu nangu xol yu nangoo ko gën a wóor te xol yi nangu nangu nañ Serigne Touba te ñu gàntal nee neen xam nañ ne xam na ne nag gi ngeen nangul Serigne Touba rek moo tax ngeen wuy see nii dikki ngeen dikki nag wóor na ko ne kenn ku ci ne pëste fa mu amoon mooy naa màggali wala lu ma ca fekk rek baax na bu ci seen bakkan doon dese jaral na leen ko jaral na leen jaral na leen ko jooju nag fu yoon yu mas a tàmbalee ba fu mas a àgg moo ko fa yóbbu te loolu itam ñu ngi ko doon ci sahabatu rasul te Sëriñ Tuubaa waxoon na ne ñooy seen bàyyi diine tanaazaul mawta maa wal kullu minhum sajua yabqi lixa aw yushraa li hubbi maahil xumami taalibe yëpp dafa dañoo meloon kuy njëkkante ak faatu ngir xam ne dana ñëw waaye na leen na na war nañoo am yaqin ci ne buñ dikkee jàmm képp lañ fee topp ndax suñ borom waxoon na ci alquran maa kaana allahu li yazara almuminina ala ma antum alayhi xata yamiisa alxabisa min atayibi min atayibi wa maa kaana allahu li yudlihakum ala alxaybi yàlla nee na maa ngi leen di seetlu waaye duma leen di wax ne dama leen di seetlu seetlu gi rek mooy seet ba xam li ngeen di xool li ngeen di wax dëggale ci yéenam déet waaye nee na wóor na ko ne pësteef ak jom ak fi fit bi ngeen àndal ak yaqin yi ngeen àndal ci seen digg Sëriñ Tuubaa ni ngeen wushee wane na ko kon nag ne seenum xel dal bu baax seen yaakaar dolli ko mu wóor na leen ne li ngeen doon wut si mooy ngërëmu Sëriñ Tuubaa te ngeen ci dajeek moom te képp ku fi ñëw ku ne na sam xel dal ndax Sëriñ Tuubaa moo waxoon ne inna allazina ila sarsaara qad qasadu ziyaarati faaraqu daarina aw saara képp koo xam ne siyaare si nga moom ku ne na nga xam ne suñu boom tàggale na ay bàkkaar ci àdduna ak kon nag sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu di fàttaliku ko bis bi nga xam ne rek moo ñu fi dajale mooy bis bi nga xam ne ci la fi sëriñ Tuubaa bàyyi ko woon dem liggéeyal boroom ak liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muy bis boo xam ne nag nañ xam ne sëriñ bi ba muy dem jom ako fit ak njàmbaar rek a ak bëgg a xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa te wax na ne sababu xaybatiya أن الله أراد أن أنال منه جاها وأن أكون wa لقومي وأن أكون خادما في الدوم kon yooyu rekk ko taxoon a jóg mooy liggéey li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak xeet la aw xeetam kon nag nee na xam giñ xam loolu nag xam ne sëriñ bi xeet li mbindee moo ko yëkkati woon ndax sëriñ bi dafa wax ne ci ezel suñ borom ba nga xamee dajale na mboolem nit yàlla yépp dafa dajale mboolem nit yàlla yépp ca ësal yëkkati lu màgg lu rëy lu kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu demee muy feeñe kay nëbbu sëriñ bi dajaay nit yàlla yépp suñ borom dajale ne suñ borom dajale nit yàlla yépp xamal leen ne lële de damaa bëgg ku ma ko jële de ku ma ko indil waaye nit yàlla yépp kenn amut fitu dem jug jëli ko waaye sëriñ bi nee na ma xam ne ndegam suñ borom tudd na ko rek lu mën a am la neen man na ko man de mën naa loo ko andil ndax inni xafisun alim ndax woo na ma ne suñu boom ba ko tuddee lu man am la nee na foofee nag la suñu boom daalante moom waxante mu ab ab moo tax nee na mu delluwaat ba mu demee ba ab ba jot boo waxtoo jotee nag ci laa jug gàddaay kër yi bàyyi bàyyi bàyyi njaboot gi ànd man képp di mu liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa mooy liggéeyam boo xam ne lépp lu ñu am ca lañ ko amee te liggéey bay ba muy dem dafa wéttalikoo yàlla képp rafiqi kitaabullahi rasulullahi ak alxuraan képp la wéttalikoo ba dellu siwaat nu àndut ak kenn astaxlisu li nafsi ñu teg ko ci nattu li mu sóortu baqara lépp mu dékk ko ba àndaale ndam lii nga xam ne moom la àndaale tey muy tukki boo xam ne lépp lu sam xel dem ci xalaat rek teg nañ ko fa ngir bëgg koo mbugal wala ngir ba fa bëgg a faat ba kanam waaye jëpp fitna wala musiba bu ñu yëkkati bëgg ko teg rek suñu borom dana ko yëg ni ko ñëpp yëgee waaye yàlla dana ko musal ci loola ba yàlla def nag mu ne fa juróom-ñaari at yu manqué tuuti yu tegal tuuti thamaaniya hijajan illa qalilan ba ab liggéeyam man mu dellu siwaat bi mu dellu yi nag laata muy ñibbisi nag ci la wax ne nawaytu shukrahu la daa daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa xilaam yéene naa sant yàlla bu ma demee ba dellu ci samam réew mooy cant gi nga xam ne nag moom la santaante ñu ko ko ci bisu tedd bii sant nag nañ xam ne dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg ndax bokk na ci maqaamaatul yaqiin te suñ borom wax na ci alxuraan ne la in shakartum la azidannakum wa in tashkuru yardahu lakum waaye xam gi mu xam ne nag lu jafe la moo tax mu ne wala tajidu aktharahum shakirin wa qalilun min ibadiya shakur xam gëm xam ne sant lu jafe la kon nag bu ñu amee taw féexe Serigne Touba woote ñëpp na ko sant yàlla ci bis bi ñu woy si ko ci suñu xel war naa dal war naa dal suñu yaakaar war naa gën a dolli ko suñu digg ak Serigne kon nag Serigne bi nee na nañ sant yàlla bi mu ñu booleeg Serigne Touba sant sant Serigne nag ci boole gi ñu boole ci boppam ndax moom kat waxoon na ne. xam ngeen fu ma ànd ak yéen ñu ne ko déedéet Mbàkke mu ne yow ma alastu bi rabbikum ba nga xamee ne suñ boon dafa bind arwaax yépp wax ne alastu bi rabbikum baru rasulullahi sallallahu alayhi njëkk wax ne xaaloo balee shahidna nee na foofee nag ba ma jugee ba wax ba wax balaa falaa tàmbalee di tànn samay taalibe ca ba agsi na gëni képp koo xam ne tànnaale woon naa la ca booba da bokk ci sama njaboot képp koo xam ne tànnaalewu ma doon ca booba doo bokk ci sama njaboot kon nag nañ xam ne képp koo xam ne bokk nga ci taalibi Serigne Touba yi Serigne Touba moo la tànnal boppam dugal la ci biiru njabootam muy loo xam ne itam nag faggul na leen loo xam ne kenn nitu yàlla mosu ko fàggul aw nitam ndax koo xam ne wax na najjeyta man bi yataallaqu maha min ash-shayatin fa shukru yasmaa képp koo xam ne aju nga ci man ku ne suñu borom tàggale la ak seytaane wax ne kullu bi yeluusu yasaadu wa innahu min al islaamu baadu bépp taalibe bu aju ci man bu ne suñ bon tàggale naa lor te da texe te lool rek mooy li ñuy wër ci àdduna ak alaaxira kon nag sëriñ bi nee na nañ gën a góorgóorluwaat bu baax gën a dolli pëstéef gën a ëpp dogu ci li ñu fi indi bàyyi ñu fi muy jaamu yàlla te loola sëriñ tubaa dana ci li ñaari tomb wala ñett yoo xam ne sëriñ bi da ko daa wax daa waxoon sëriñ Mbàkke bu ne ko yow bu Buso yaa ngi nii li la sa borom digal ngi ci sa kanam li la sa borom tere ngi ci sa mboolem li bëgg te di ko wut te ko fexe te di ko sàkk guddeeg bëccëg mu ñu sawtu ndeyjoor li ngay bañ te ko ragal te ko watta guddeeg bëccëg mu ñu sawtu càmmooñ waxtu woon ñokket nag jëm ci la sa borom mboolem li ngay bëgg te ko wut te ko fexe te ko sàkk guddi bëccëg mu ñu sawtu ndeyjoor mboolem mboolem mboolem li ngay ragal te ko wattandiku mu ngi sootu càmmoñ waxtu woo ne ñokke ne jëm ca lal sa boom digal mboolem li bëgg te di ko te di fexe te di ko sàkk guddi bëccëg loo ne la mutumaa geesoo bokk fu ñu jëm mboolem li ngay ragal nag te ko daw te di ko wattandi guddi bëccëg loolu na ne mutumaa geesoo bokkuñ fu jëm waxtu woo ne jokk ñokkit nag jëm ca lala sa boroom tere mbooleen li ngay bañ te ko wut te ko fexe te ko sàkk guddi bëccëg loolu mutumaa loola ne la mutumaa geesoo bokkuñ fu ñu jëm mboolem li ngay li ngay bañ nag te di ko ragal te di ko wattandi guddeeg ba ci loolu ne la motuma gesoo ñoo bokk fu ñu kon nga dégg ci ne kon mboolem digal yàlla yi mboo mboolem li ngay bëgg mu ngi ci digal yi mboolem li ngay bañ mi ngi ci tere yi waxoon na it ne doomu aadama di doomu aadama di saa su xëyee daa bind ak miim bind ak noonu nen doomu aadama di saa su xëyee mi ngi dàq addunaam ji nga xam ne mu ngi koy dàq te du ko jot mukk xam ngeen àdduna yooyu na muy na muy mujjeeg moom ne ko mes dem bàyyi ko alaaxiraam ji topp ci ginnaawam xam ngeen ne muy mujjeeg moom ne ko nuus jàpp kon nag nañ xam ne Serigne Touba ay waxam loo ci jàpp tënk ko rek mën nga see jariñu ren ba déwén wala sa géru dund sax di fàttali itam ci fii jamono toll sëriñ bi nee na nañ gën a tënku ci ndigale Serigne rawatina ay teggin ndax teggin Serigne Touba waxoon na ne yox fii jahalatan waxu handasa bi te sëriñ bi Massa wax ne dee leen bari teggin ndax bu teggin jugee gudd fan ne ko doomam fi bàyyi àjjana ne ko ma teeru leen dalal leen daal di wax ne dee na bi ndax bu jugee gàtt fan ne ko doomam fi bàyyi sawara ne ko ma leen dalal leen daal wax ne dee leen mooy tooñ ndax kuy tooñ du mucc waaye kuy fayu du ñëw dee leen mooy gis seen bopp ndax ku gis sa bopp yàlla réer la. te ku yàlla reer seytaane lay womat te seytaan te seytaane ku mu womat safaan ba lay jëme jeneen mooy waxe bakkan ndax ku waxe bakkan ñu tontol bakkan ngeen féewoo te féewoo lu na xaj da ca dee leen mooy yow fétal te jaar ci ngir ma ndax kuy fétal ku nekkat fuy fi nga mujje muy wànne haasa siraati mustaqiman fattabihuhu wala tattabihu subula fatafarraxa bikum an sabilihi ba ca mujj nag mooy li ñuy tudde alxidma xidma nag sëriñ bi nee na mi ngi koy fàttali ñëpp mooy li dox suñ digg ak sëriñ Tuubaa te mooy jaayante gi jaa jaayante moom di ko liggéeyal ngir yaakaar ci ak payam adduna ak alaxira nañ xam ne xidma fépp fu yoon murit masa àgg moo ko fa àggale jumaa njaarim ba ko sëriñ Tuubaa santaane lam kàddu yam ci waxoon 1926 ñëpp dégg nañ ko dafa wax ne maa ngi leen di diggan diggal loo xam ne fu waaye jëm noo ko fa yóbbaale te mooy lépp lu ngeen bëggati wala ngeen sumbati ka sumbati ko rawatina lu mel ne néegub yàlla bii na ngeen ci góor góor la ngeen man ak la ngeen mënut te foje seen ka kenn seen kem seen kattan yem ngeen laxasaayu dem wuti ko ci anam gu sell te foje seen kattan yem ngeen too xaar fa sayaj'alu llaahu ba'da usrin yusran te rikki nag maa ngi leen di wattandikuloo lépp ndimbal loo xam ne bu leen bu leen fajalee bu leen bu leen fajalee seen aajo dana leen xaj seen ngor xaj seen xaj leen seen jom tilimal seen diine daal koy firi lu gudd la ndax xam naa jataay bi dafa yàgg waaye loolu rek sëriñ bi nee na moo waraloon taalibe yépp la xasaayu ba lépp lu ma lu ma sa am ci yoonu murid rek njàmbaaru taalibe yi ak seenu positif ak seenu dogu moo ko fa di kon nag nee na mi ngi leen di soññaat baax a baax ci loolu xam ne na nag fàttewu leen ko ndax la sëriñ Saliou Mbacke daa wax rek joxe bi dafa jiitu laaj bi kon moom bale leen laaj seen pësteefu seen xëy andi na ko waaye mi ngi leen di fàttewaat sumb mu rëy wii di daaree Cheikhul Khadim ji nga xam ne sëriñ Touba da ko ittee lool te moom képp mooy naal wi fi sëriñ Touba bàyyi sëriñ bi ne yéen ñëpp ngeen fekk ko ci wane ca ak wane ca ak dogu waaye mi ngi leen koy fàttaliwaat yéen ñëpp ngeen fas ko yéene ànd ak moom ndax dégg ngeen ko ci bi ñu woote màggal gi nee na lépp lu ñu ci def ci alal kat bu demee ba liggéey bi ak itam alal ju ko ëpp dana ci dana ci demaat ak li ko yor bu faw kon nañ xam ne sumbu la sumbu la xam ne nañ jàpp ne waxtu wu nekk rek dañ caa war a nekk ndax sëriñ bi mboolem ñi fi jëf yëpp nag ku ci ne ci ndigalam boo koy defee ñëpp nag mu ngi leen di sant den gërëm waaye mi ngi soññaat taalibe yëpp ñu gën a góor góoru te xam ne kat lépp ci waay lépp lu ci waaye def rek sa bopp nga koy defal ndax Serigne Touba waxoon na Serigne Massamba Diop Samb ne ko Massamba mu ne ko Mbakke mu ne ko baa xam nga ne ak Daam Saan la Daam mooy ak dencukaay kon nañ xam ne lépp lu ñuy defal Serigne Touba rek suñ bopp lu ñu ko defal kon nag Serigne bi nee na mi ngi leen sant bu baax di leen sant ci seen positif ndax ni mu ko waxee ci tàmbali bi rek xam na ne bi ngeen di ñëw di màggal si ak doog ngeen ñëwee waaye bu ngeen fàttali ko seen bàyyi diine di saxaaba yi. ak seen suñ mag ñu jëkk ña ñee dañoo tuur dañoo tuuroon deret joxe seen alal joxe seen jëmm ñi jëkk a topp sëriñ Tuubaa itam jaral na ma rek la waxoon xamuñu woon fu leen sëñ bi jëme am na ci ñoo xam ne daanañ yanoo fii ay dem ba xumaag am na ñoo xam ne daanañ doxee kajoor dem ba ba ba ba ci yéen jolof am na ñoo xam ne daanañ joxe saalum ñëw ba njaareem loolu lépp nag seen pëstéef ak seen dogo ak lu leen ci mas a fekk rek te xam ne jàmm rekk lañ ci fekk ndax Serigne Touba kat kenn mësu koo liggéeyal ba sa mujj ñaaw ndax moo waxoon ne yow suñu borom nag ma may képp koo xam ne ana man waasalani laa li xaradin dunyawin fa innahu yakunu min al muqarrabin képp koo xam ne ñëw nga ci man te àdduna képp andi la yàlla na la suñu borom te àdduna daray àdduna yëkkatiw la yàlla na la suñu borom boole ci ña ko gën a jege waaye képp koo xam ne ñëw nga ci man te àllaaxira képp tax laa jóg ana man anna man waasalani laa li laa li garadin dunyawin fa innahu yakunu min almuqarrabin wa anna man waasalani li dunya fa inna allaha li dunya faqat fa inna allaha yukrimuhu maadaama hayyan koo xam ne nag àdduna képp la tax a jóg maa ngi ñaan suñu borom ter la sa giir dund kon Sëriñ Tuubaa lépp loo ko waay jëfe rek bu dee at bu fekkee positif nga ko defee sa teraangay àdduna ak alaaxira taxaw na kon nag fi ma koy jeexale rek mooy ñu gën a dalom xel tarafa njor xam ne dëkk bii di Tuubaa seriñ Tuubaa ba muy taalif xasi rek Matlabul Fawzayni daa waxoon ne wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayib shurbaha wa aklaha moo tax ko gis dëkk bi ni mu demee ak mbas mi fi xam leen ne ñaanuk Sëriñ moo ci jiitu waxoon na it ne Tuubaa xarasaha allahu taala min kulli makruhin wa maxoofin kon nañ xam ne Tuubaa suñ boom da ko aar ba yàlla defal ko nii mu ko def te Sëriñ Tuubaa kat waxoon na ca njaarim ci daje yi mujj dafa woote bis sëriñ Massamba ngoon ca jataay ba mu ne dox na diir bu gàtt ne ñu ñibbi ca suñu pàkk ba suñu pàkk bu tedd ba di Touba bu boobaa nag des na diir bu gàtt adduna sépp ab xiif dana leen sonal adduna sépp ku ca ku ca bëgg a mukk ku ca bëgg a mucc na dem ca sama pàkk ba ca Touba mooy des na diir bu gàtt ceddo yi danañ sonal nit ñi di nangu seen alal di seen bakkan ku ci bëgg mucc na dem ci sama pàkk ba ci Touba mooy des na diir bu gàtt adduna jëpp dana defuk daay tàkk ba daj ku jë ku ci bëgg mucc na dem ci sama pàkk ba ci Touba kon nag nañ xam ne dëkk ci dëkk bi taw féex la joo xam ne koo ko yàlla defar war ngaa sant yàlla bu baax te xam ne lépp lu Sëriñ Touba ñaan ci dëkk bi lu mu mën a doon muy ndox mi ak di courant bi ak lu ma doon rek naa nga xam ne ni ko Serigne Touba ñaane noonu lay demee ndax Serigne Chouaïb yu Mbacké daana nett li dafa am ku ñëw njaarim fekk fa sëriñ bi ba mu agsee Serigne bi dadaa def ku bàyyi ko Touba balaa wax kenn yow la jëkk a waxal mu ne anaka ca sama pàkk bu tedd ba mu agsi Serigne bi ne ko nekk sama dëkk ba nu mu def mu ne ko xanaa Mbacké ma nga fay ñàkkum ndox lool sëriñ bi ne ko loolu des na diir bu gàtt mu jeex mu ne ko ah, lool de xanaa mbàkke ku ku gudd fan loolu du ko fekke daa defoon ko xam defoon ko xama ko xamut waxin sëriñ bi ne ko ku gàtt fan du fekke dara ñu teg ci diir bu gàtt mu faatu kon nag li ma koy jeexale rek mooy la Cheikh Mahmoud Moustapha Mbàkke daa wax daa waxoon ne daa wax ne waccaal bihi daariya kal madina barakatan wal kaabatal masuuna dañ koy jàng ci kanamam am ku ne ko mbàkke kooka mel na ko xaw a sikk sàkk mu ne ko mbaa danga koy sikk sàkk mu ne koo kooku ne cell mu ne ko sëriñ Tuubaa de li ma wax ma teg ci sama bët li ma wax te tegu bu ma ci sama bët laa gën a gëm bu ma woon kaasu kafe mu wóor ma ne lii kaasu kafe la la ma sëriñ Tuubaa wax te tegu bu ma ci sama bët laa gën a gëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh